exercer la souveraineté qu'il détient du peuple sénégalais. Mhm. alors tey jii nii boo gisoon ni conseil constitutionnel war nañ ko réformer lan nga yan coppite nga jàpp ne war nañ ko ci mën a indi. bon pour pour wàññi critique yu bëri yi ñu koy critiquer ak yenn décisions yi nga xamante ne impopulaires yi nga xam ne dañ koy génne waaye ñu bëri ci askan wi duñ ci ànd duñ ci d'accord. xam nga conseil constitutionnel d'abord il faut ñu jàpp ne. dafa war a gën a ubbeeku ci ni muy xoole réew mi ak ni nga xam ne moom lay jëfee parce que moom moom moo war a seet jafe-jafe yi nga xam ne mooy am walla conflit yi am entre les différentes institutions mhm. moom équilibre pouvoir bi ni ko constitution bi tërale moom moo war a fexe ba mu aw yoon loolu mooy liggéeyam ngoonte woon da ngay jàppale ci politique la nekk parce que li mu yore yëpp politique la gouvernement assemblée nationale conseil économique social au conseil des collectivités locales les cours et tribunaux le conseil constitutionnel et les cours et tribunaux mhm. parce que conseil constitutionnel ak cours et tribunaux bokkuñu façon bu boobaa nag conseil constitutionnel ñi ko ñi ko war a ñi ko yor a yore ñi ko war a yore mhm. dafa am ay branches yoo xam ne waruñ ci ñàkk moo tax dugaloon nañ ci avocat ainsi de suite ainsi de suite mhm. ñaareel bi mooy composition bi ñu changé def ko juróom-ñaar ba ñu koy def joxoon nañ suñu xalaat ni ëpp na mhm. parce que au cinq membres du conseil constitutionnel moo gën a yomb gérer juróom-ñaar surtout ñaar yi ci tegu ci réforme 2016 bi ni ñu ko indee dootul directement président de la en tant que président du conseil supérieur de la magistrature moo koy choisir mm-hmm. parce que dañu wax ne ñaar ñi ñaar ñaar ñoo xam ne mu ngi leen di tànn moom président ci ñeent ñi nga xam ne ñeent ñi nga xam ne moom la leen président assemblée nationale di yónnee proposé mm-hmm. moonte da ngay jàpp donc que le président de l' assemblée nationale dafa am ay fonctions mission yoo xam ne du mission régalienne constitutionnelle am voter la loi contrôler le gouvernement évaluer les politiques bi ñu dugal ci ne ko léegi nag moom dafa war a joxe ñu choisir moo tax bon ñeent ñoo ñu mu yónnee. Mhm. président assemblée jàpp na ne ñaar yi. de mhm. manière indirecte moo leen yónnee donc dafa duggoo encore foofu ci prérogative bu président de la République te président de la République moo ko def ci constitution bi en 2016 bi ci des. Mhm. dafa am controverse bu rëy bu am ci benn mission boo xam ne bii. mission conseil constitutionnel te dañ ko te dafa réer mooy la mission consultative mm-hmm. mooy conseil conseil da nga ko laaj mu jox la xalaatam xalaat boobu mën nga ko topp mën nga ko bañ a topp moom la ab Ablaye defoon en 2001 moom la Macky saa def en 2016. Mm-hmm. mais ci biir constitution bi dañ fa def que le président de la peut demander des avis peut demander des avis mais avis avis ba boobu. l'avis consultation la woon rek liéwul le président de la république mais ci loi bi nga xam ne moo régler le problème de l'organisation du conseil constitutionnel ministre de la justice moo fa def benn phrase bu ndaw bu soppi lépp dafa yokk en toute matière le conseil constitutionnel prend des décision mooy xalaat bi mu doon laa jaw bu la ko mhm. xalaatee mhm. laaj la ko nga joxee xalaat bi rek conseil constitutionnel collègue décision la te décision conseil constitutionnel dañuy wax ne euh, moom kenn du ko laal. Mhm. kenn amul recours amul voie de recours dafay imposer ou à toutes les autorités. Mhm. wante woon léegi laaj conseil constitutionnel dara mais c'est ça devient une gravité sur le cours de l'histoire de notre pays loolu aussi. am na ci ay ay ay problèmes yu bëri mm-hmm. ensuite conseil constitutionnel mm-hmm. dañ ko war a ubbi magistrat war na ci am mm-hmm. bon moi je pense que conseil constitutionnel boo amee ñetti magistrat yoo xam ne yi euh, de notoriété lañu yu am carrière lañu yoo xam ne yi choix bi dafay jógee sur leur père ñoom ñu jox ko président de la république pour mu leen pour ñu ko amee président de la am na lu mën a seet choisir nag deux autres personnalités mhm. ci yeneen ci yeneen ci yeneen secteur yoo xam ne dañuy am dañuy am lien direct avec l'État avec la politique avec l'État avec les institutions donc mën nañu évoluer vers une cour constitutionnelle ah mën nañu évoluer vers une cour constitutionnelle. ça dépend ci ñi koy demandé man demandé wu ma cour constitutionnelle. d' alors balaa ñuy génn ci chapitre boobu am na ñaari laaj yu la bëggoon laaj benn bi mooy lan ngeen di soupçonné exactement par rapport ci juge constitutionnel lan ngeen leen di sub lan ngeen di soupçonné ci ñoom. man dama soupçonné juge constitutionnel yi. non bu mu wax waxuma yow mais bu ma nee soupçonné mooy seen seen camp fi ngeen bokk. ki porté ñi porté plainte ba ubbi commission d' parlementaire ñoo am na lu ñu téye kenn du. jege nga leen. non encore une fois jege taxul jege yàpp taxul nga moom yàpp. xam naa ne mbuuleen yi ak sàmmeel yi encore dégg naa ne ñoom Cheikh Samb boo demee ñu am nguuram boobu dama ne fees taxul moom res. der la yóbbu ak bopp. jege nit taxul moom parce que loolu mooy dugal nit ñi si wax lu ñu wax lu ñu xamul. jegewuma foofu parce que du ma député nekkuma ci ñoom la ñuy dina xam ne ko mas naa ko nekk. Mhm. ba ma ko nekkee am naa yoo na loo xam ne moo ko daan téye juróom-ñaari weer ñaari at fukki at te kenn du xam lan la. Mhm. xanaa jege jegeetoo Karim Wade. non du question jege encore une fois du affaire Karim Wade affaire soupçon la. Mhm. defar nañ ci commission d' enquête commission d' baa ngi liggéey léegi jeex na. ñu ngi seet leneen. d' accord loolu moom la ci tontu. à quand le retour de Karim. écoute je pense que je pense que c'est c'est c'est c'est très bientôt hein. Euh, donc loolu la. une date loolu la loolu la mënuma joxe dat loolu da ngay dem laaji ko Lamine Thiam. Mm-hmm. na fi Diallo ñoom ñoo gën a am possibilité pour wax la lan moo ci nekk Lamine Thiam am na lu mu ci waxoon. mais c'est constant que dina dina dina dellu si ndax dina. c'est constant que dina dellusi. mais pratiquement wax na ko léegi rek. parce que ci information bi tuuti bi mu joxee tey expliquer que yëg na ne que Sonko mu ngi waxtaan ak état bi ba nga xam ne ñu ngi préparer pour génne ko libérer ko ak ay ñooñam mais wax na ne c'est une excellente chose parce que moom xam na kaso ni mu méttee ngont bon bu ñu ko génnee ci kaso yi moom day applaudir mu ngi ñaan mu génn ñu libéré ko libéré ñu ma àndal ñëpp bu ko defee mu mën a préparer élection yi pour ñu mën a daje ñoom ñaar en deux le 15 décembre. justement yaa ngi évoqué le Euh, mais am na ci loo xamante ni ba léegi leeru si bopp ak sénégalais dans quelles conditions lañ ko exfiltre yóbbu ko fële ca exilé ko fële ci réew ma mu ne lan nga ñu ci mën a wax lu bees loo xam ne sénégalais xamuñ ko ci woon. non Pape xam nga ni xam nga ci lu bëri. même bu dee mënoo wax lépp. non Pape xam nga loolu waxu xale xam nga ci lu bari te mënoo wax lépp donc xale yu ndaw man mag laa maa la mag xaw ma ban at nga juddu mais jagal naa jur naa sama rob xam nga li gën a bon ci àdduna mooy mën nga intelligent mais mën loo defee ne yaa gën a intelligent yàlla ak ki nga toogal erreur la Karim bu fekkee ne da nga bëgg a xam ku ko fi génne te yow ngay def émission judiciaire depuis 2012 te yow amuloo fiti seeti ministre de la justice laaj ko question bi mënoo nga dajeeg Mimi Touré laajuloo ko ko laajuloo ko Macky Sall ko sàggan nga xam nga yaakaar na ki nekkoon fii journaliste sportif te xamul woon ne Sénégal day dem coupe de coupe d' Afrique des Nations yéen a képp mais man boo ma ko laaj du ma ko xam ki ko génne nga koy laaji ki ko jël dugal ko ci avion nga koy laaji xam nga laaj laajaloo bu Barthélemy Dias laajoo bu xalifa parce que dañ leen bàyyi ci mbedd ñu dem ngoonte moom am na ñoom lu ñu ci xamoon da ngay dem nga laaj Macky Sall il faut parfois. que mhm. journaliste yi am pas toupé xam ne information bi ñu war a am te amuñu ko dans le cadre du droit à information. dañuy dem seeti bu ñu dajeek Macky Sall même ci dëj ne ko mais monsieur le président man de jotoon ma la woon gis mais affaire Karim Wade bi nu mu demee laaj la rek mais ñun boo leen ñu ko laajee du leen man tontu. mais bu dee fëgg nañ ay buntu nag te amuñ fa yenn résultat yi nag. Ah. yow compte tenu sa proximité ak Karim wala ak. ñoom ak bokk bi nga bokk biir PDS. ma ne liñ ci mën a xam bokk ak ñeneen ñi nga xam. mais encore une fois du question proximité nit jege nit te boo te ànduñu. nit jege nañu te xamuñu ko nit nekk naa jabaram ci benn lal am lu ko réer nit nekk naa jabaram ci benn lal am lu ko réer nit nekk naag rakkam ndey ak baay ci benn kër ba génn àdduna am lu mu ko xamalu ñaan ko nangam ak nangam te xamu ci woon dara. Mhm. kon mën nañu am yaakaar ne bés booy bind say mémoire par exemple di nga ci ñëwaat am épisode. mënuma ñëwaat ci loo xam ne rek xaw ma ko. Pape man du wax lu ma xamul. daa mel tontu boobu moo gën a simple de. non mais non non parce que dama ci xamul. d'accord xam lu ma xam. Mhm. li ma def li ma fekke liñ ma wax te ma wóolu ki ma wax. Mhm. d'accord ah, li li ma nit wax te ma wóolu ki ma wax. Mhm. am na ku ma ne benn bés fan yële passé na ma yëg nga ne Karim Wade ñëw na biig ma ne ko ana mu ne mu ngi këram. demain day def conférence de presse ma ne waaw ngoonte boo liggéey dinaa ko yëg mais bu ma ko gisee du ko laaj dama koy xool rek mu xool ma ma xam mu xam boppam bu ko defee dootuma fenn. <laughs> alors honorable dañuy daal di ñëw ci pàcc bi nga xamante ni moom moo mujj ci waxtaan bi muy présidentielle 2024 bi nga xamante ni poussandi nañ ko ba le 15 décembre 2024 bu dee dina am ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy dat boobu noonu.